jërë ngeen jëf euh, mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi déglu rajo réew mi FM 97.5 mbokk yi ñu dellu am mbégte dellu siwaat euh, ci seen émission pencum réew mi comme ni ñu ko baaxoo di def euh, ak yéen samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h maanaam ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu ngeen di sant ak Abdou Khadre Seck Mamadou Diaw jàll moo nekk ci wàllu machine bi mbokk yi tey ñu dellu am mbégte daal di invité Mouhamadou Habib Aidara. Euh, mi nga xam ne moom mooy secrétaire général euh, du syndicat unique des travailleurs de la santé du SUTELEC moom lañu euh, de la Sénélec moom la ñu invité tey ngir waxtaan ak moom ci société bi nga xam ne mooy Sénélec mu nekk kër goo xam ne kër gu am solo la moom Mouhamed Habib Aïdara mu aussi mu jiite SUTELEC nekk syndicaliste aussi boo xamante ni ràññee nañu ko mu mbokk ci syndicalistes yi nga xamante ni tey euh, référence lañ ndax am na taxawaay boo xam ne ñu bari remarqué nañ ko aussi boo xam ne taxaw na ko ci euh, kër gi di Senelec rawatina liggéeykat yi nga xam ne euh, maa ngi fi. ay dara dellu nañ am mbégte ñëw fa yéene seq ak yow waxtaan ñoo ngi leen nuyu. jërëjëf Abdou Khadre maa ngi lay nuyu di la ziar di la sant di nuyu seen mbokk auditeurs yi di nuyu sénégal yi di nuyu aussi liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk Senelec. liggéeykat yi nekk Azer parce que am nañu fa ay travailleurs liggéeykat yu nekk Kunun Power ñi nekk Commacel ñi nekk Contour Global ñi nekk Tobeen Power ak ñi nekk euh, Tegma ndax foofu yëpp ay entreprise la yoo xam ne seeni liggéeykat dañoo affilié ci Senelec ci ci mais kër yooyu nga tudd euh, ci Senelec lañ bokk. déedéet bokk bokkuñu ci Sénélec parce que ASER mooy agence sénégalaise d' électrification rurale donc ba à part la. am na ay ñëpp li ñu fay liggéey yëpp ci sama syndicat la ñu bokk. ñu am aussi commencel mooy compagnie sénégalo marocaine bi nga xam ne affaire électrification lay def dans le nord foofu aussi ña fay liggéey ñëpp ci biir Sutelec lañ affilié ñu am aussi Kunun paw benn centrale la boo xam ne ñu am dañuy togg courant ña fa nekk ñëpp ci ñun la ñu bokk ñu am aussi Contour Global moom itam di central privée boo xam ne ña liggéey ñëpp ci Senelec ci Sutelec lañu affilié wu. am ñoo xam ne ñoom it Tecma la ñu tudd ñoom itamit ñu ngi affilié ci Sutelec am tamit ñi ñuy wax euh, Tobène Power ñoom itamit ñoo nekk côté Tivaouane di jaay courant Sénélec ñoom itam ci ñun lañ affilié. Mm-hmm. donc ñoo ñëpp ay entreprise la yoo xam ne bokkuñu ak Sénélec waaye ci ka domaine électricité la ñuy liggéey mais ñu am confiance ci Sutelec pour vraiment ñoo ñu jàpp di ànd di liggéey. d'accord euh, ci euh, loolu sax ci lañuy ñuy rebondir ci Sutelec Sutelec bi nga nekkee ci boppu syndicat bi yàgg na. Euh, bi nga koy dog du yor ak ki nga fa wuutu ñu bari njortoon nañ ne Sutelec dina dem ba euh, dina ndëgër laayam wala doole bi mu amoon dina wàññeeku ñu gis ne euh, boobu ba léegi nii élargie ngeen li nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy syndicat bi confiance boobu agent yi wéy di ko am lan nga jàpp ne moo ko waral. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah rabbil alamin ndax syndicat bi. bi ma ko commencé jiiteeg léegi yàggul noonu ndax ci ñeenti at kese la toll ñu ngi waaj a dem congrès weer bii di ñëw euh, bi may jël syndicat bi syndicat bi si 841 membres la nekkoon ci biir Sénélec. 800. 841 membres 841 adhérents. tey jii boo xoolee bu ko nattee ñu ngi ci 1867 nit. donc ci ñeenti at yi yokk nañ ci lu ëpp mille personnes donc double double nañu personnel bi ensuite bi ma koy jot ASER moo ci nekkoon ak Kunun Power waaye ci diggante bi am na yeneen ñeenti syndicat yoo xam ne ñëw nañ fekk suñu te am na sax beneen bu ñu waxtaanal mooy waa Sendu ñëw nañ ba ñu waxtaan ak ñoom nee nañ dañoo bëgg a bokk suñu syndicat loolu lépp nag boo ko xoolee muy tey ji confiance. boo adhérents yi yaay dem vers eux wala ñoom ñooy ñëw ci. waaw lu ci ëpp daal bu dee biir Sénélec moom wax dëgg yàlla dañu am ay structure de base moom mooy ay sous section kenn ku nekk fa nga nekk ak ña nga nekkal yaay waxtaan ak ñoom ba wax dëgg yàlla convaincre leen am na tamit ñoo xam ne dañuy gis rek taxawaay bi ñu am taxaw ak am seetlu ñoom ñoo jógal seen bopp ñoo ne kat yéen daal li ñuy gis ñun li ngeen di def gis nañ ci suñu bopp ñu ñëw ànd ak ñun. maintenant ñi nga xam ne nag ñoo nekk ci yeneen entreprise yu bokkul ak nekk biir Senelec ñoom ñooy xëy rek ñëwal seen bopp ne ñun daal gis nañ seen taxawaay dañu bëgg a ñëw pour ngeen boot ñu. maintenant li may wax nag si li indi loolu mooy dafa am taxawaay boo xam ne ñu ngi koy jéem man ak ñu may liggéeyandool parce que SUTELEC du man kese dafa am secrétariat exécutif boo xam ne ñoom ñooy xalaat di nas di nocci dama ci nekkandoo ak ay samay naataango yoo xam ne ay chef de département lañu ñu am ñoo xam ne aussi ñoo ñu toogal ci gox goxaat yi ñu tuddee leen bureau exécutif national kenn ku ci nekk ca fa nga nekk yaa ngi liggéey liggéey bu rafet bu mucc ayub dafa mel ni rek tey jii presse yow mii di ma interviewé yow la nit ñi di dégg mais ci gannaaw am na ñeneen ñuy liggéey ñooñu vraiment dama leen di defal gàcce ngaalaama maintenant sur le plan des yi parce que li tax li indi nit ñi du ay wax kese mais li ñuy wax ga euh, bu jëf teewee wax mën naa bañ a bëri gars yi dañoo gis ne bi ñu nekkee ci kanamu organisation bi ba léegi ay combat de principe la ñuy taxawal liggéeykat yi ñu ngi gis seen bopp ci seen ay revendication muy ñi ci biir Sutelec di ñi nga xam ne ñoo nekk si biti keroog def nañ benn conseil national boo xam ne sous section d'entreprise bu nekk ñëw na taxaw wax si kanamu nit ñi la nga xam ne moom lañ fa jot a am donc vraiment sur le plan des acquis bu ñu leen ñu ngi leen di jox rendez-vous si congrès bi ñuy def le 11 juin à la maison de la presse bu ngeen ñëwee di ngeen dégg rapport d'activité bi di ngeen xam ne ñeenti at yii fi passé wax dëgg yàlla ñi nga xam ne ñoom la liggéeykat yi amoon confiance ci ñoom chômé wuñu def nañ fi liggéey bu mucc ayib moo tax tey ji liggéeykat yu bëri am ci ñun confiance ba ànd ak ñun. Euh, congrès bi aussi jàpp nga ne dina am démocratie. waaw ñun suñu lépp démocratie la ndax même réunion yi ñuy def bu ñu ñëwee ñun du ñu daayira boo xam ne imaam bi rek wala kilifa gi mooy wax ñëpp topp ci ndigal bi. lépp lu ñu war a jël décision dañ koy teg ci table ci kenn ku ci nekk wax ci xalaatam man bëri na ay décision yoo xam ne dama koy xalaat ni sër ko mais bu ma ñëwee ñu waxtaan gars yi bu ñu d'accordul ak man su fekkee ne man minorité laa damay plié wu. amul jaay doole jaay doole donc congrès bi aussi noonu lay demee ñu ngi commencé jaay carte yi. kenn ku nekk li nga jaay si ay carte moom moo lay représenté ci congrès ba bu ñu ñëwee ci congrès ba kenn ku nekk da nga yëkkati sa loxo man mi mën naa yëkkati sama loxo keneen gañe ma comme keneen mën na yëkkati loxoom aussi mu jël syndicat bi syndicat bi question de confiance ki nga xam ne moom la liggéeykat yi gën am ci moom confiance kooku la ñuy fal donc ce sera de manière démocratique mais est-ce que yéen bureau exécutif bi ñi nga àndal di liggéey est-ce que jàpp nga ne ñeenti at yi ngeen fi def def ngeen fi loo xamante ni tey euh, agent de euh, de la Sénélec yi danañu amaat confiance ci yéen maanaam ñu bokk ci Sutelec danañu amaat confiance ci yow ak ci ñi nga xam ne ñoom nga liggéeyal ba tegaat la ci bopp syndicat bi. waaw xam nga loolu moom nit mënul natt boppam liggéeykat yi ngay laaj si biir Sénélec. ndax ñoom confiance bi ñu amoon ci ñun ba teg ñu fi durant ñeenti at ci biir ñeenti at yi ñoom am na dañuy renouveler confiance wala déet man mënu ko wax parce que ñoom ñoo may jugé def nañu bilan dinañ présenter bilan bi maintenant ce sera à l' assemblée euh, générale de décider est ce que dañuy renouveler confiance wala déet. d' jërëjëf euh, Mouhamadou Habib euh, dara léegi euh, dinañu dikkaat ci seen assemblée général boobu léegi nag fan yi ñu génn première mai muy bis bi nga xamante ni tey liggéeykat yi dañuy jébbal seen i cahier de doléance njiitu réew mi yéen ngeen nekk syndicat seen i revendication amoon ngeen ay revendication ci ci ci premier mai bi fan ngeen jébbal seen i revendication ak lan moo nekkoon seen i ñaxtu waaw booy xool euh, bu premier mai dëgmale UNSAS bi nga xam ne mooy central bi nga xam ne moo ñu boot dafay laaj secretaire général bu nekk lan mooy ay mébétam ñun nag wax dëgg yàlla comme suñu situation méttiwul lool ñun dañu jàpp ne une UNSAS dafa war a def kéemtalaay kàttanam pour jàppale waa sas ñi nga xam ne ci une sas lañu bootu ak waa SNTPT bu poste mm-hmm. ñun daal wax dëgg yàlla dañu jàpp ne Euh, fu ñuy feese kenn du fa jooy ab góom te ñoom wax dëgg yàlla seen situation metti na ba nga xam ne ñun ñëpp dañu jàppoon ne ñëpp dañu war a bàyyi seen bos pour ñoom ñi nga xam jàppale pos ak jàppale santé maintenant ñun si suñu wàllu bopp nag wax dëgg yàlla suñu ay problème ñu ngi koy waxtaane si suñu biir néeg ak suñu ay kilifa ñu ngi rencontré directeur général bu Sénélec ñu ngi rencontré aussi ministre bi bërki démb rek le 28 avril rencontré nañu ministre bi ci question yi nga xam ne électricité la maanaam moo xam Sénélec la moo xam Azer la ak yépp surtout ça vraiment ñu ngi ciy waxtaan mais sur le cahier euh, cahier de doléance ñun daal dañu wax ne une sas na jàppale santé ak euh, post d'accord mais euh, Habib yéen agent de la Sénélec yi dama dañ leen gëj dégg ngeen nekk ci presse bi di ñaxtoog yooyu lu waral lool. waaw dañoo comprendre li nga xam ne moo ñu war ci réew mi parce que tey jii boo xoolee euh, économie pays bi ak développement réew mi ak tawféexu kër yi mu ngi aaju ci Senelec donc ñun dañu conscient ci li nga xam ne mooy suñu warugar suñu warugar mooy fexe ba liggéeykat yi ñi nga xam ne ñu am bërëbu liggéeyukaay ak ñi nga xam ne ñu ngi ci kër yi ñu am courant bu doy te courant boobu aussi muy am tout le temps. donc loolu boo ko amee nag mu nekk sa priorité leneen lépp da nga koy li ñuy wax relégué au second plan mooy da nga koy jàllale si gannaaw maintenant naam loolu nag bu ñu defee suñu devoir ba pare dañu war a laaj suñu àq ak suñu ay yelleef suñu àq ak suñu ay yelleef mooy naka la ñuy def pour améliorer suñu condition de travail suñu condition de vie ak suñu condition de rémunération loolu aussi ñu ngi ciy waxtaan ak kilifa gi nga xam ne moo nekk si biir kër gi muy le directeur général wax dëgg yàlla mu may ñu nopp nag ndax mu ma Mademba bi de mu ngi ñuy déglu à chaque fois bu ñu toogee de manière raisonnable nag parce que tamit bala nga ne naam ne fa entreprise dañ koy teg loo xam ne attan na ko ñun suñu salaire yi wax dëgg yàlla dafa tuuti boo ko comparé ak secteur hydrocarbure ak secteur électricité ñun waa rek liñ ñuy fay dafa tuuti wax dëgg yàlla tamit jooyuñu parce que am na ñoo xam ne ñoo leen tane maintenant Pape Mademba Bitèye nag à chaque fois mu ngi ñuy jox ba nopp pour vraiment xool naka la ñuy def pour li nga xam ne moom la entreprise bi attan mu ñuy defar ay revalorisation donc tey jii li nga xam ne mooy suñu suñu revendication ci biir biir Sénélec mooy revalorisation des salaires bu fekkente ni bi ci yeneen entreprise yi mooy ASER dem nañ fa rencontré nañu directeur général bi dem nañ ba ci ministre bi sax ba mu arbitré ba tey jii dafa am ay textes législatifs yoo xam ne war nañ ko teg ci taabal bi lu mel ni Comacel depuis quinze ba léegi yokkuñu salaire te liggéeykat yi aussi seen salaire yi dafa tuuti lu dem ni ki contour global tamit demoon nañ fa amoon nañ fa problème mu heure supplémentaire réglé na mais ba léegi ñoom aussi seen heure seen salaire yi dafa nañu jàpp ne war nañ ko yokk ak seen ay conditions de travail nga dem si Tobène Power ay naar ñoo fa nekk ak ay tubaab yoo xamante ne ñu bëgg dañu bëgg di bon di compter liggéeykatu Sénégal yi waxtaan nañoo ñoom ba am na loo xam ne sax yokk nañ ko fan yi mais daf ci am euh, discrimination maanaam lu mel ni par exemple euh, prime de prime scolarité bi dañuy xool ndax am nga doom boo amee doom ñu ne la est-ce que doom bi am na ñetti at wala déet mais tey jii ki amul doom du moom mooy may boppam yàlla moo koy may. donc loolu waluñ ci def discrimination. boo demee lu demee ni ki Tobène Pao c'est la même chose boo demee ci ki Tekma wax dëgg yàlla ñu ngi euh, félicité directeur général moom aussi am na yu mu teg. mais est-ce que am ngeen ay prime de ay prime de risque. amaguñu prime de risque ñun biir Sénélec mais fexe nañ ba au niveau de Kunun Power wax dëgg yàlla instauré nañ ko te dañu bëgg ñun ñëpp dañuy liggéey ci ay machine dañuy liggéey ci courant bi. lu tax lu amu leen prime de risque. voilà waxtaan nañ ci ci réunion bi ñu mujjoon def ak direction général ñun waa Sénélec ba directeur général d'accord na ci principe bi maintenant direction de ressources humaines ñoom ñooy traîner le pied parce que bu directeur général joxee ndigal depuis le depuis le 31 décembre ñu waroon ko appliquer en janvier direction de ressources humaines dafa waroon jël motukaay yi pour ñu fay ñu prime de risque. mais ba fi mu toll nii kenn fayaguñu ko. Euh, jërëjëf euh, ay dara yow yaa jiite euh, syndicat bi di Sutelec ci Senelec sànq ci sa biir wax nee nga directeur général bu Senelec di ma Pape bi tey Euh, ma ngi leen di déglu seen i euh, problème wala seeni i revendication yéen a koy waxtaanee ci biir kër gi euh, est-ce que tey mën nga ñu defal benn remarque bu ndaw bi Pape Demba bi tey ñëwee ba léegi maanaam ak li mu fekkoon seen a Senelec jamono ji fi Cissé di nekk boobu parfois seen coow doon na bëri léegi bi Pape Demba bi tey dikkee aussi mel na ni mbir mi est-ce que ni leen Pape Demba bi tey di dégloo Makhtar Cissé doon na leen dégloo noonu en tant que kilifa gu jiite Senelec waaw ma dellu si préciser rek même maxtar Makhtar sa nekkee fi kenn déggul woon coow ci biti ñu ngi dégg coow ci presque bi ak il commencé donc bi Makhtar Cissé di bëgg a dem wax dëgg yàlla Makhtar Cissé bi mu fi nekkee ubbiloon nañu nopp parce que boole woon nañu ak directeur des ressources bu ñuy wax Bachir Sall wax dëgg yàlla mu amoon ubbeeku ak nopp bu ñu tàllaloon ñuy waxtaan lu bëri. donc loolu mooy li ma la wax rek parce que ñun dañ ñoom Matar Cissé bi muy ñëw mu ngi ñëw presque en 2012 mooy bi président de la république Macky Sall yéegee ci nguur gi tombeek ñu génn ci 2011 émeto électricité yi mu ñëw ñu bokk tow waxtaan ñu ne ñun kat bala ñuy nekk fii naan nañu revendiquer nañ fexe ba nit ñi am courant parce que xuy xamante gi dafa bëri woon donc loolu moo indi woon dal bi mais bi ñu dalee ba nga xamante ne bii ñun fexe nañ ba def suñu warugar la ñu commencé vraiment nag commencé waat di waxtaan si biir mais wax dëgg yàlla si sa joxoon nañu nopp bi tey tamit wax dëgg yàlla gàcc gàcce ngaalaama daf ko gën a renforcer parce que bon gestion bu nekk nag am na lu baax am na lu bon parce que dans la gestion de ressources humaines de Sénélec ñun kontaanuñ si mais boo xoolee ci management Sénélec boo xoolee ci gouvernance bi am na yenn yoo xam ne ñu daje nañu ak moom pour waxtaan ci ak moom ndax léeg-léeg dañuy jël direct dañu bëri ay directeurs yu ñuy nommé ñenn ñu def leen ay directeurs principaux ñenn ñu def ay cellules loolu vraiment dëppoowul ak une bonne gouvernance loolu wax nañ ko ko ni nga xam ne moom la ñuy gérer les ressources humaines de Senelec aussi am na ci loo xam ne bot di compter la am na ci loo xam ne par par loo la. ni ñuy defee recrutement yi aussi d' accord ñu ko. li ñuy defee recrutement yi aussi d' accord ko. parce que tey jii Sénélec dafa nekk entreprise boo xam ne sénégalais yépp a ko moom. donc képp ku jàng ba am sa lijaasa am nga droit liggéey Sénélec te ñun gis nañu ne am na ay prestataires yoo xam ne nekk nañ fi a jàng am seen ay lijaasa. di nekk fii ñu leen di def ay prestataire bu embauche jotee ñu dem jëli ay doomu directeur wala ay doomu politicien loolu dafa war a dakk ci Sénégal xëy na sax mënul ñàkk mais dafa war a néew par rapport ak li nga xam ne moom la ñu war a embauche lu mu bon bon 90 pour cent yi dañ ko war a def sous forme de concours wala ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon prestataire ñu defal leen ay test entre ñoom seen biir ñu jël leen mais bu ñuy jël rek dem jël ay nit yoo xamante ni seen ay mbokk lañ wala seen ay jegeñaale ça aussi rafetul loolu aussi ñu koy ñaawlu mais quand tamit def na liggéey bu mucc ayib parce que sur le plan des investissements nguur gi mu ngi koy jàppale ba mu ngi investir ba tey jii courant bi am na stabilité sur le plan du réseau aussi gis nañ ne amélioré nañ ko des des matériels de de de de de de dernière génération lañ fi teg ba nga xamee tene bi tey jii suñu produit vraiment mëccu na ayib ayib leneen li nga xam ne moom la ñuy ñaawlu rek mooy la gestion commerciale direction commerciale moo des ndax léeg-léeg clients yi dañuy ñaxtu am na am na suñu kër yu bëri yoo xam ne boo fa demee da nga naan fii est-ce que këru Senelec la parce que ñun def nañu tourner dans l'intérieur du pays mais dafa mel ni dafa am ñaari Senelec am Senelegu Dakar ak Senelegu région mais loolu mooy ñaa néewal ak ñàkkal fayda bu ñu ñàkkal fayda les régions loolu amul dara lu ko mën a justifier parce que client bi nekk dakaar amul dara lu mu ëppale client bi nekk ci région bi agent bi liggéey Senelec nekk dakaar amul dara lu mu war a ëppale agent bi nekk ci région yi mais dakaar da ñëw si benn agence nga fekk fa ñetti oto nga dem ci région yi amuñu sax mobilet bu ñu liggéeyee wala lu ñu yóbboo xaalis Senelec loolu du dëgg du yoon boo demee fu mel ni Oussouye Senelec ci biir sd e lañ ko héberger nga dem Ourossogui gi seen euh, Senelec ba benn puqus la ñu luye ci biir marché bi xam nga yooyu rafetul au moment où tey jii gis nga agence su sacré bi mu ngi nii rafet ba bëgg dee loolu teguñu ko fenn donc sur le plan de la gestion wax dëgg yàlla am na ay mbir yu baax yu mu def mais am na ay sooke yoo xam ne aussi war na ko joyante pour que Sénélec fexe di am kër boppam arrêté location yi Sénélec mën a mettre les clients dans de bonnes conditions Sénélec mën a recruter du personnel personnel boobu ñu motiver leen di leen solal ba nga xamante ni mi ku ñëw Sénélec da ngay ne ah fii kat entreprise bu respecté boppam. donc tey jii sécuriser nañ production bi améliorer nañ réseau de transport bi mais commercial dafa des parce que amuñu ay nit yu doy manque personnel amuñu matériel bu ñu liggéeyee. amuñ les travailleurs aussi ne sont pas suffisamment motivés. lu jëm ci wàllu euh, vol d'électricité bi fan ngeen ci toll ci xeex boobu. ñun Sénégal dañ koy wax nii rek am na lu naam mais joxuñu ko gëdd bi mu war a am pour ñu xeex contre le vol d'électricité parce que am na benn département boo xam ne érigé nañ ko uniquement pour mu xeex vol électricité mais ci ay këyit la nii mais moyen yi mu war a liggéeyee amuñu ko. service boo xamante ne bi yow yaa war a wër Sénégal yépp ba mu daj. nga am benn oto kese am ñaari équipe kese ci Sénégal yëpp yaa combien de départements loolu du yoon. mais agent yi nag. non agent yi ni ñu leen d'abord mooy li ma wax sànq embauche yi ni ñu koy defee baaxul parce que booy embauché da nga naan mankat kat poste bi bëgg naa fi def nangam mais dañuy embauché nit ba pare di wut ñu ko teg ce qui fait que les embauches ne sont pas bien faites donc aujourd'hui Sénélec dañu war a xoolaat suñu politique des ressources humaines. ensuite ñu service yi nga xam ne mooy ay service névralgique lu demee ni que fraude bi ñu jox ko moyens yu doy pour que mu xeex fraude bi parce que bu ñu xeexee fraude bi Senelec dina gën a jëm ci kanam te boobaa clients yi dinañ ko sentir. d'accord euh, jërëjëf euh, Mouhamadou Habib euh, dara sànq ci sa biir wax yaa ngi wax bay tudd dossier Akilee mu nekk dossier boo xamante ni coow li bëri woon na ci dossier boobu fan la toll. dossier boobu Senelec dafa résilier contrat bi ndax dañuy wax ne contrat dafa am kenn ku nekk lu la ci war ñun Senelec li ñu waroon def nañ ko waaye moom ak li dafa am ay éléments yoo xam ne motalewu ko ci ay chartam comme amoon na ay manquement Senelec daal di dénoncer contrat boobu benn ñaareel bi ñun bi ñu commencé wax ci dossier bi pour wax ne dossier bi baaxul président de la république dafa convoqué benn réunion ca ca palais de la république dossier bi mu teg ko ci loxo agent judiciaire de l' état agent judiciaire de l' ba mu càmbaree dossier bi dafa ne dossier bi baaxul parce que bénéfiqueul pour état du Sénégal bénéfiqueul pour entreprise bi ñu ne kon boog nañ ko teg ci suuf waaye fan yii nag ñu génn dañoo dégg ne am na ñuy def ay mana mana pour indiwaat dossier Akilee. ay manœuvre ay manœuvre pour joxaat marché bi. pour jo pour joxaat marché bi Akilee ñun nag loolu lañ ne duñ ko nangu jaral nañu ñu teg ci suñu bakkan. ndax fas wuy raw kenn du ko jaay Senelec gis ngeen fan yi depuis mille 2011 ba léegi ay bénéfice la ñuy def jóge nañ ci benn milliard teg ci juróomi milliard bénéfice jóge juróomi milliard dem juróom-ñaari milliard jóge juróom-ñaari milliard dem fukki milliard ak benn jóge fukki milliard ak dem fukki milliard ak juróom-ñaar jóge ci fukki milliard ak juróom-ñaar dem juróom ñaar fukki milliard ak juróom muy cinq milliards daaw 20 euh, en 2020 ñu ngi def 38 milliards de bénéfice ren jii en fin décembre deux mille vingt et un ñu ngi laam-laamee ne bénéfice bi war na mu tolloo quarante milliards. maintenant nan nga mën a defee bénéfice bu toll noonu nit ñi di liggéey au lieu nga motiver liggéeykat yooyu nga xam ne ñoo ngi lay defal bénéfice nga ne léegi loolu nga doon def man dama wut keneen ku ma ko jox te kooku benn nit kese la loolu duñ ko nangu. d'accord mais euh, foo ñu ñëw ci akkali bi tuuti euh, danañ si ñëw mais li nga wax nii dafa xaw a am euh, lu ma si xaw a jaaxal yéen def ngeen ay bénéfice ay trente ba pare sànq si sa biir wax ci monde rural bi ci yeneen région yi ñoom dañu dañu am jafe-jafe pour am agence boo xamante ni bu mucc ayib comme bi nekk fii. mais mooy paradoxe bi parce que bu fekkee ne yaa ngi def bénéfice da nga wàññi sa ay charge pour que yow sa marge bénéficiaire gën a rëy te ñun tey jii bénéfice lu mu bëri bëri bëri état bi moo koy moom parce que état bi mooy actionnaire à 90 pour cent beneen 10 pour cent bi ci des caisse de consignation et de dépôt moo ko moom ñun ñii liggéeykatu Senelec yi def bénéfice yi amuñu ci capital boobu dara donc bala ngay wàññi say charge Senelec amuñu sax tenue de travail amuñu tournevis amuñu mobilette bu ñu liggéey mais na ñu yokk investissement yi. nu ñu yokk investissement yi mettre les gens dans de bonnes conditions bu boobaa état bi moom premier bénéfice am mooy Sénégal am courant bu doy. d'accord léegi léegi Akili euh, kon da jàpp ne état bu Sénégal. soxlawu ko ndax bu dee liggéey courant bu doy yéen a ngi koy def estabilité am na ci courant bi bénéfice euh, yéen a ngi koy def ressources humaines rek moo leen dese. non waxuma ne sax ak kili euh, Senelec da koy jox production bi Senelec njaay mi la koy bëgg a jox ñun ñooy togg courant bi transporté ko yóbbu ko ba ci biir kër yi ñoom ñu ñëw waa ak li indi seen ay compteur pour nattal ñu ñun li ñuy jaay après facturer ko loolu lañ wax ne baaxul te loolu ñun mun nañu ah maanaam ngeen ko mais mu moom la ñuy def actuellement nii ak li nekkul Senelec te mu ngi dox e-, exactement donc pourquoi ñu bugg ko jox parce que ay deal la dañu jàpp ne lii ay mbirum njuuj njaaj la parce que ñun ñëpp xam nañ Sénégal koo fi jox marché dafay am loo ciy am waaw ak lii su dee tey par tey dossier boobu président recevoir woon na ñi nga xamante ni ñoo ko seeq pale ba waxtaan ak ñoom jël dossier bi jox ko agence judiciaire de l' état agence judiciaire de l' liggéeyal mu état xam ne dossier bi nekkul dossier boo xam ne bu bu bu baax la ci ci ci réew mi nekkul dossier bu rentable aussi ci Senelec lan moo tax ñu bëgg see dellu siwaat ah wax dëgg yàlla mënuma ko wax mais daal xam naa ne ah, jox na rapport xanaa non xam nga ne ñun dégg nañ ne ki nga xam ne moom moom ak li mu ngi doon politique. te am na base. te xam nga ñun ñëpp xam nañ Sénégal nu muy doxe ñun ñëpp xam nañ Sénégal nu muy doxe boo fi amee base politique dañ lay woo di la neexal. donc amul raison en tant que président de la république nga wax ba pare bëgg a waxaat waxaat leneen donc ñun mënuñu nekk xam li nekk ci xelam xam lan moo ko mébét mais ñun daal li ñu tënk. mooy ñun travailleur Senelec waxuma la militant Sutelec de mais liggéeykatu Senelec yépp juróomi syndicat yi fi nekk plus association yi ak amicale yi ñun takku nañu ba dëgër wax ne lu mu leen jaral ñun jaral nañu ko ak akili pour rien monde du dellu siwaat biir Senelec xanaa dañuy jaar suñu kaw te bu boobaa nag population yi dinañ ko yëg bu baax a baax a baax ñun takku nañu niñ takkoo woon démb ak bërki démb parce que bu njëkk ñetti syndicat rek ñoo d'accordoon ne ak li baaxul ñaari ñaari syndicat ne léegi ak baax na mais fii ñu toll nii temme liggéeykatu Senelec yépp xam nañ ne ak li baaxul te ñu ngi bootu suñu gannaaw di ñu déglu donc ñu ngi alerte nag population bi di alerter son excellence le président de la république que du ñu nangu ak li di dellusiwaat sous cette forme laa ci biir Senelec jërëjëf euh, Mouhamadou Habib dara mbokk yéen ngi déglu rajo réew mi FM moom mooy secrétaire général euh, du syndicat unique des travailleurs de la Sénélec léegi sànq sa biir yi wax nee nga euh, syndicat yi nekk biir Sénélec mais Sénélec dafa nekk kër goo xam ne dafa bëri ay syndicat ay juróomi syndicat ma ngi fi lan moo waral lool waaw xam nga de am na suñu benn nattangoo bu daan wax ne séentu asamaan jarul buuxante. donc bu fekkee ñun ñëpp li ñu tax a jóg mooy défendre suñu outil de travail maanaam Sénélec ensuite défendre travailleurs yi soxlawuñu juróomi syndicat tey jii nag ñu ngi sant yàlla boo xoolee sur les 3000 travailleurs de Sénélec presque 1900 yëpp ci ñun lañ affilié maanaam mooy deux tiers liggéeykatu Sénélec. ci Sutelec ci Sutelec la ñu bokk. donc nga xool ñeneen ñi entreprise yëpp ñoom seen liggéeykat yëpp yëpp ci ñun lañu ñu sëkku ñu ngi liggéey nag ak yeneen syndicats yi pour fexe ñu nekk benn parce que li ñu jëm dafa soxla booloo ñu ngi jëm ci lu ñuy wax réforme institutionnelle. yéen a ngi réunion yéen waxtaan. ñu ngi waxtaan maintenant waxtaan bi léeg-léeg mu avancé léegi léeg mu reculé ñu waaye daal jubóoguñu mais daal li ñu bëgg a xamal liggéeykatu Senelec mooy enjeu yi am tey. Mm-hmm. ak fi ñu jëm dafa laaj booloo nekk benn. suñ ko defulee ñun ñoo siy perte liggéeykat yi et ensuite clients yi aussi dinañ ko yëg. Euh, jërëjëf euh, léegi yéen defoon ngeen tournée ci ci ci Sénégal euh, seen tournée yooyu lu taxoon ngeen def ko ak tamit ndax solo si solo si am na solo daal maanaam tournée bi ndax am na am na résultat. waaw xam nga ñun bañ ñu falee ñu nekk ci bopp Sutelec dañu waxoon ne. dañu bëgg fépp fu travaayu Senelec nekk waxuma rek foo xam ne fa la militant Sutelec nekk ñu dem fa nemmeeku la xool condition de travail yi nga nekk ñun dem nañu Gosaas amuñu fa benn militant dem nañu Guinguinéo amuñu fa benn militant donc ñun dañ doon xool fépp fu liggéeykatu Senelec ñu dem saytu la ni nga nekk eh, dem nañu ay benn liggéeykat lañ fa fekk dem nañu pete benn liggéeykat lañ fa fekk donc ci Senelec bi bon donc mooy wane ne ñun du militant Sutelec kese moo ñu tax a jóg mais liggéeykatu Senelec moo ñu tax a jóg bi ñu demee dañ doon xool lan mooy condition bi ñu fa jógee gis nañ ay manquement yu bëree bëree bëree bëree bëri bëri bëri ñu waxtaan nañ ci ak directeur général ñu ngi defar rapport boo xam ne dinañ leen ko tegal directeur yi nga xam ne ñoom ñoo yore loolu lépp. ñu ñëw toog pour ñu indi ci ay saafara am na nag ay saafara yu ñu commencé indi. Mm-hmm. mais quand même doyagul. mais ñun daal dañu bëgg ci mandat. boo ne nit ki boo yëkkati sa loxo ba nit ki ne nga ne ma dama bëgg ngeen fal ma ñooñu bu ñu la falee doo toogee ba jëmmi jamono war nga dem seeti leen nu ñu toogee loolu moo taxoon moo loolu doonoon mëbatu tournée bi ñu doon def. mais est-ce que yaa ngi am information à temps réel même su dee defoo tournée ci agent euh, de la Sénélec yi bokk ci Sutelec te nekk ci biir Sénégal gi yëpp est-ce que yaa ngi am information peut-être ak. Euh, Euh, xarala yu yees yi euh, di ngeen si mën a jaarale seen information est-ce que information yooyu abi Aidara yaa ngi koy am. waaw xam nga dañuy wax ne pour nga mën a gouverner il faut ngay am information man wax dëgg yàlla sama numéro téléphone moo gën a siiw sax ya agence Senelec yëpp ko am donc man tout le temps toute la journée damay wuyu téléphone donc liggéeykat bu ma soxla même bu fekkee du liggéeykatu Sutelec dafa may woo téléphone su fekkee ne jàppandi na ma wuyu la su jàppandiwul aussi dinaa la rappeler mooy première chose deuxième chose dañoo am ay sous-section ci bërëb bu nekk am nañu fa ñoon ñu fa tawgal mu am secrétaire général ñu am aussi ay kuréel yoo xam ne moom lañ tuddee ay bureau exécutif régional ñoom itamit dañuy réunion ak seen ay travailleurs en plus de cela am nañ benn groupe mail mooy ay échange ñuy def par Outlook foofu tamit am nañ groupe bu ñu tuddee conseil national élargi ku bëgg am sa xalaat wala dara nga yónnee ko foofu am nañ tamit ay groupe WhatsApp yu bëri yoo xamante ni man maa ngi ci groupe yépp donc lépp lu am nit lu muy wax daf koy dugal ci groupe bi même ñun bu ñu demee tournée fépp fu ñu mën a dem dañuy jël ay photo wane condition de travail yi nga xam ne moom la ni ñu nekk comme ça li xew Ourossogui gi ka nekk Kédougou dana ko yëg li yëg li xew Kédougou ki nekk Bourguiba dina ko yëg li nekk Bourguiba ka nekk Yoff dina ko yëg donc vraiment ñu ngi échanger te loolu mooy tax sax wax dëgg yàlla ñuy dox ci li fexe liggéey mais mais déggoon nañu fi tamit euh, bu paasee coowul akkali li euh, bor bu leen xaa bu leen euh, Senelec bu Sénégal amee loon yéen agent yi ci xaalis boo xam ne yéen yéen a ko doon dajale bu dem ba nekk ay milliards ñu waxoon ne Senelec daf ko jël jëfandikoo ko bor boobu fan la tool waaw bor bi maanaam moo dañu am lu ñu tudd fonds de promotion économique et sociale bon travailleurs yi dañ siy cotiser Sénélec di si cotiser parce que ci politique sociale lu Sénélec la bokk waaye wax dëgg yàlla depuis un temps nag Sénélec def na ci ay jéego yu baax a baax a baax loolu moom réglé na maintenant li réglé mooy bor bi nguur gi ameel Sénélec te koo fay. muy maanaam subvention yéen a ngi dégg président de la république keroog bi ñu koy jox cahier de doléance bi mu ne génne na lu tolloog ay milliards yu bëri pour jàppale ménage pour que courant bi bañ a yokk mais subvention boobu ngay lay jàppale ba tax courant bi du yokk nguur gi pour mu joxe ko dafay nekk problème benn mooy mooy compense beneen bi mooy les édifices maanaam lu toll ni ki administration centrale dañ ñu ameel ay milliards yu bëri lu toll ni ki hôpitaux yi lu toll ni ki assemblée nationale lu mel ni ki euh, les universités ak les établissements publics à autonomie financière ñooñu lu ñu ameel Senelec dafa bëri moo tax mu xaw a metti gestion bi ñuy woon ak nguur gi pour que vraiment ñu ngi jox ñëpp mais Senelec nañ ko fay bor parce que bala ngay maye da nga war a fay say bor. Senelec si bon mënuma la jox chiffre bi actuellement te tamit bugguma aussi di ko dévoiler bëri na ay milliards yu bëri na 300 milliards bugguma joxe un chiffre wax day mais état bi xam nañ Senelec xam nañ mais population bi nañ xam ne Senelec bu amee jafe-jafe nguur gi moo ko ko jëkk mais xanaa ma ngi dugal ndànk ndànk wala waaw ni muy dugalee dafa tuuti parce bu fekkee ne danga amee nit ki ñaari junni bu ñëwee nga jox ko téeméer loolu amul njëriñ donc nguur gi dañu bëgg ñu fay Senelec seen li ñu ko ameel ci compensation bi ñu ngi wax nii ci télé yi naan ñu ngi jàpp dinañ jàppale ménage yi dinañ def lii dinañ def lële mais dafa yéex mais ñoo ngi dégg état bi euh, fenn fu nekk ma ngi fay dugal loxoom pour prix bañ a yokk ak euh, xeet yu demee noonu mais pour bañ courant bi yokk aussi euh, wala Senelec bañ a am jafe-jafe il faut que mu fay fay bor mais loolu la président de la république moo ko wax ci kanamu sénégalais yépp bërki démb ci trois le 3 mais bi muy jëlee cahier de doléance nee na dina jàppale ménage yi par rapport ak Senelec pour que courant bi bañu yokk loolu nag dañuy xool ndax moom dafay jëfe li muy wax. wala ay waxi kasaw kasaw lay wax mais xaalis boobu daf ko war a verser Senelec ci ni mu gën a gaawee bu fekkee ne mu ngi ci kafaga réew mi. mais amee lu benn amee lu leen woon xaalis ci jamonoy Covid bi ndax gisoon naa Senelec joxe ay côté yooyu. non loolu moom jox fay nañu ko parce que Covid bi dafa jàppale woon kii fay nañu ko wax dëgg yàlla. macha allah euh, jërëjëf euh, Habib euh, Aïdara léegi yéen fi mu moom jàpp naa ne euh, amu leen problème comme yéen a ngi dem bay euh, def ay def ay bénéfice def ay bénéfice euh, Sénélec fi mu nii moom bu président Macky Sall nag Habib bu président Macky Sall liiree entretien bi nga def. mu ne yow yow nga ne Senelec jóge na ci un milliard deux mille quinze deux mille vingt et un ngeen dem ba def benn bénéfice trente huit milliards bénéfice trente huit milliards président danaan Senelec ñoo ngi avancer ñoo ñu amuñ problème xaalis. mais président de la république xam na loolu ndax 38 milliards yooyu 2020 la woon mais 2021 dama ne la 40 milliards la mais 40 milliards yooyu moom lañu koy versé waat parce que moom mooy actionnaire majoritaire. mais ngeen jël ko seen benn seen boot bi moo leen ameel. waaw léegi dañuy def compense effectivement dañuy def dette croisée Senelec léeg-léeg bu waree verser état bi te état bi daf ko war a jox dañ koy def dette croisée mais loolu du toujours lay am te loolu presque fin ba fin d'année lay am. est-ce que état dina nangoo dette croisée. mais noonu la ñuy doxalee depuis de tout le temps dette croisée la def. non mais état bi dañuy wax ne moom état mën na laa ameel un million. yow nga ameel ko 500000 mu ne la fay ma ba pare ma doog laa fay au lieu que mu ne la léegi maa la desel 500000 wala doxaliwut ak yéen noonu. non non xam nga Senelec li muy jox état bi du lool kese parce que tey jii boo xoolee dans le domaine du fisc. impôt ak yooyu li ciy versé entreprise bi su boppam li muy versé bëri na mais liggéeykat yi aussi li ñuy jël ci seen salaire en matière d' dafa bëri te dañ koy versé régulièrement mmh. ensuite am na lu ñuy jox collectivité locale yi mooy la taxe communale loolu aussi dañ koy joxe plus maintenant le bénéfice bi nga xam ne ñu ngi koy jox état bi maintenant lu ci gën a bëri nag direction générale dafay rencontrer ministère de l'économie et finance pour ñu xool naka la ñuy jokkalante waaye premier trimestre ak deuxième trimestre état bi dafa war di jox Senelec li ko li mu warloo ak moom te loolu dafay sooke toujours dañ cee am ay jafe-jafe jërëjëf euh, Habib euh, Aïdara mbokk yi yéen a ngi déglu rajo réew mi FM seen émission pencum réew mi muy am samdi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h ci rajo réew mi FM moom mooy secrétaire général bu euh, Sutelec liggéeykat yi bokk ci syndicat boobu te nekk ci Senelec léegi Habib Aïdara ñu daal di wax ci code de l' électricité bi nga xam ne adopté woon nañ ko ci benn conseil des ministres code boobu fan la toll. waaw code bi day wax dëgg yàlla ñun gisuñu ci su suñu bopp dañoo xëy xëy rek ñu ne ñu code baa ngi ni fekk signé nañ ko promulgué nañ loi bi ban ba pare. bi loolu amee ñun dem nañu rencontrer ministre du pétrole et euh, ministre du pétrole et des énergies ñu wax ko li nga xam ne moo ñu ci naqari woon. mu ne ñu code bi daal defar nañ ko mais code bi comme dafa général dafa am ay décret d'application yoo xam ne moo koy gunge et ci décret d'application yooyu la ñuy tënkee est-ce que Senelec naka lay doxee est-ce que Azer nan lay devenir concession yi nan lay devenir ak yépp ñu tënk ko maintenant tasewaat nañu ak moom le 28 avril bii ba invité nañu ci benn euh, groupe de travail boo xam ne nee na ñun syndicat yi nañ wut ku ñu fa toogal pour que bu ñuy defar décret de décret d' yooyu ñu bokk waxtaane ko. moom ministre bi wax dëgg yàlla aussi moom elle est très mooy madame Sophie Gladima wax dëgg yàlla ñu ngi waxtaan waxtaan yoo xam ne vraiment ñu ngi ciy gis suñu bopp. Euh, ginnaaw loolu nag ñu daal di euh, dellusiwaat euh, ci li nga xamante ni tey. Euh, moom mooy euh, seen assemblée général bi nga xam ne tey moom ngeen di euh, waajal ci weer yi nga xamante ni moom la ñu moom la ñu jëm est-ce que jàpp nga ne dina am ay candidats yu la opposé ci biir syndicat bi. ah waaw naturellement parce que tamit <laughs> mbir mi ñun dama ne la biir Sénélec kese nekk nañ presque mille neuf cent personne Azer am na ay militants Commacel am na ay militants. kunun paawa toobeen contour global fépp am na ay militants donc képp ku mu neex mën nga ñëw samp sa ndënd te itam de manière démocratique lañ koy defee maintenant liggéeykat yi te militants yi ñoom ñooy xool est-ce que ñoom war nañu renouveler seen confiance ay Aïdara wala déet te bu boobaa tamit lépp loo xam ne moom la verdict bi génne man dinaa ko nangu te tey jii bu amoon beneen secrétaire général bu syndicat Sutelec ci laay gën nekk militant ndax man Sutelec dama ko bëgg sama biir xol ba ba may génn Senelec incha allah dinaa ci def sama kéemtalaay kàttan lépp fépp fu ma leen mën a féete mais wax dëgg yàlla euh, képp ku mu neex bu bu bés na nga yëkkati sa loxo ñu xool ndax yow yaay gañe wala keneen mooy gañe parce que même bi sax ba léegi est-ce que dinaa nekk candidat wóoragul ndax kenn ku nekk bala ngay nekk candidat sa agence ba nga nekk il faut que ñu jaay ay carte bañ ne ñoom yow da nga leen di représenter. agence bii ma nekk nii nag suñu njaayum carte benn milit benn nit kese lañ amagum. su leen neexee ñu ne duñ ma fal bu boobaa du ma sax bokk ci congrès commencé nañ jaay carte yi ñu ngi war a pare le 10 mai buñ paree le 10 mai nag la ñuy xam ndax man mii dinaa bokk ca congrès ba wala du ma bokk ci congrès mais est-ce que Habib Aïdara ma ngi def euh, campagne fi mu ne nii waxuma la ci agence bi ndax agence bi man waxuma sax waxi agence bi ndax euh, agence bi du problème euh, est-ce que Habib Aïdara ma ngi def campagne ci Ndakaaru ak ci biir réew mi yëpp. bon man wax dëgg yàlla defuma campagne parce que jàpp naa ne nit. boo liggéeyee benn mandat ba pare waratoo def campagne da nga war a présenter sa bilan en fonction de sa bilan nag nit ñi jàpp ndax dinañ la falaat wala duñ la falaat balaa ma doon falu mënul naa def campagne waaye bu ma faloo ba pare man sama bilan moo war a nekk euh, sama campagne mais defuma campagne. mais am na ñoo xam ne euh, boo deful campagne ñoom ñoo lay campagnal. mën na nekk ndax ku ci mel ni Obama mu ngi nekk Vincent loolu la may wax daf ne ma yaay candidat jeunesse bi mais daal lépp mu ngi tënku rek ci assemblée générale bi nga xam ne moo souveraine moom mooy décider kan moo ko jiite syndicat bi si ñetti at yi ñu dëgmal. mais est-ce que comme lii nga wax nii est-ce que jàppoo ne lu ñu waroon a doxal la au-delà de la Sénélec maanaam ki nga xam ne tey def na benn mandat même su bëggee laajaat tey warul def campagne waaye dafa war a wax. Euh, présenté bilan bu ñu ko wóoloo fal ko buñ ko wóol bañ ko falaat moo xam loi la boo xam ne nañ koy def ci ci sunu constitution moo xam maire bi la ndax maire bi nga xamante ni def na benn mandat normalement kooku dafa war a ñëw rek présenté bilan comme ni nga ko ko waxee nii euh, am ci président de la république am si keneen ak keneen ndax yow gisee ko noonu. bon bugguma ko aborder sur le plan politique ndax duma def politique mais sur le plan syndical ci sama xalaat laa wax tamit du sax xalaatu waa Sutelec yëpp man jàpp naa ne. nit ku nekk bu ñu la tegee fenn nga doxal pendant at. Mhm. dañu war a natt li nga doxal. bon bu mandat bi jotee personnellement man de fasuma yéene def campagne. Mhm. damay bàyyi nit ñi daal ñu xool maintenant nag li ma gëm mën na bañ a nekk la la vie générale de tout monde. Mhm. mais wax dëgg yàlla man gëm naa ne daal ku ñu dénk mbir boo defee mandat ba mu jeex da nga war ñëw ne yéen li ngeen ma dénkoon fii ngeen ma lii ngeen ma sasoon lii laa ci def lii moo ci des ñoom nag ñu jugé. mais dina nekk élection yoo xam ne yu transparente lay nekk. élection yu transparente yu démocratique lay doon si selek noonu la mos a doxee nee naa la même si suñu organise suñu doxale ni tous les jours noonu la ñuy doxale donc élection bu dañuy ñëw congrès bu ñu ñëwee ñu di mettre en place les délégués du congrès ñooñu daal di génn ñu génnee aussi membre conseil national conseil national boobu nag dañuy xool ñan ñoo bëgg a nekk secrétaire général ñu yëkkati seen loxo bu ñu yëkkati seen loxo kenn ku nekk dafay wote yëkkati loxo lay doon donc ce sera très démocratique incha allah. ñu ngi invité presse bi boo leen ñëwee di ngeen gis ce sera un congrès démocratique. du ah, nekk vote boo xam ne day làqu. vote noo non noo du làqu de yëkkati loxo la ñëpp fàng ku nekk gis incha allah. d' accord euh, léegi euh, Habib Aïdara euh, lu jëm ci courant bi aussi am na ñuy wax ne. Euh, courant bi bien vrai que parfois man di euh, coupure courant yi ni ñu ko doon jàmbatee peut-être mën nañoo wax ne euh, jeex na mais seeraayu factures yi aussi parfois ñu bari ñu bari dañ koy wax. waaw man day wax dëgg d'accord naa ci ñuy wax ne courant bi dafa cher Sénégal ndax bu ñu xoolee ne léegi diversifié nañu production bi ba def li ñuy wax mix énergétique maanaam mix énergétique mooy lan la ñuy toggee courant bi. avant dañ ko doon toggee fuel. te fuel mu ngi dépendre ci baril bi mu ngi yéeg wala mu ngi wàcc maintenant léegi fexe nañ ba ñu am nañ énergie solaire bu bëri Sénégal te énergie solaire presque à part investissement batterie yi amatul benn matière première booy jënd loolu waroon na fexe ñu wàcce ko électricité bi am nañ aussi li ñuy wax électricité éolienne énergie éolienne loolu tamit mooy courant bi ñuy jëlee ci jaww ji ngelaw li kooku aussi amul matière première booy jënd ñu ngi gis ne aussi pétrole ak gaz mu ngi ñëw ci réew mi ñu ngi wax aussi euh, charbon bi donc yooyu yëpp dafa war a tax ñu xam ne courant war na wàññeeku parce que la plupart des sénégalais boo amee benn frigidaire nga am benn téléviseur wala ñaari téléviseur am ñaari ventilateur am ay làmp ñaari weer yu nekk sa facture dina yegg cinquante mille ba soixante mille te ñun ñëpp xam nañ salaire u dafa xaw a cher donc li ñuy wax tuut te teew njëgu Bambey moo gën ci Sénélec. d'ailleurs boo xoolee sax woyofal bi boo xoolee ni koy facturer moo gën a yomb que facture yi ndax client bi dafay fay avant ba pare doog a am crédit donc ni ñuy facturer woyofal bi war nañ ko mën a facturer client classique bi ba pare nag ñuy wax ni clients yi tamit bu ñu mënoon dem ci woyofal bi moo gën a yomb ndax vraiment ni ñu koy facturer ñoom troisième tranche bi nga xam ne moo gën a cher kenn du leen ko facturer seen consommation troisième tranche dañ leen koy facturer ci prix deuxième tranche mais man gëm naa ne effectivement courant chair na parce que ñun tamit de la même de notre statut ñu nekk ay agent rek ay consommateurs lay ak ay défenseurs des travailleurs te man même bu fekkee ne sama kër am na lu ñu may wàññil si sama payum courant maa ngi dimbale sama beneen mbokk ci fay courant. te loolu dafa yéen a ngi fay courant. ah oui dañuy fay courant dañu am tarif préférentiel dañ ñoo wàññil comme kenn ku nekk fooy liggéey di nga fa am avantage Euh, boulangerie bi liggéey si boulangerie bu wàccee nañ ko jox ñaari mburu mu yóbbu këram. donc mais ñun dañuy fay courant ñun ñëpp woyofal la ñu nekk dañuy jënd crédit weer bu nekk. d'accord mais euh, su dee tey par exemple tey euh, compteur classique boobu ngay wax ñëpp jóge nañ fay ñëw ci ñëw ci woyofal est-ce que loolu aussi mënut a wàññi dépense yi Senelec di dépenser. bon du ko wàññi sax ndax senelek am na ci lu muy perte mais dina dimbale Senelec parce que Senelec bu njëkk ba ñi nga xam dañoo am facture dalay lebal ñaari weer nga taal mu defaral la facture mayaat la délai weer donc loolu mu lay lebal dafay nekk loo xam ne Senelec day dem si banque di ko leb mais au lieu Senelec di leb nag bu dee woyofal Senelec dafay jot xaalis bi doog lay jaay donc bu boobaa Senelec dina gën a am. Euh, cash boo xam ne moom lay mën a liggéeyee. li ma bëgg a wax foofu mooy bu dee tey par exemple tey woyofal la du jar agent bi. di déplacé wu te bu dee yeneen kii bi agent bi day déplacé wu def euh, relevé ñu jël ko yóbbu ko ci agence beeg euh, yu demee noonu personnel bi. waaw ba léegi dina soxla agent bi di déplacé wu dootul relevé dootul coupé waaye dafay def service après vente service après vente moom mooy client bi léeg léegi dafay am jafe-jafe léeg léegi dafay am panne léeg léegi dafay am jafe-jafe pour euh, charger crédit am léeg-léeg clavier am dafay am ay jafe-jafe mais tamit bi. parce que client boo ko bàyyee noonu rek te doo fa dem tous les deux mois ñoom dañuy def naka su dul noonu ensuite suñu compteur yi ko war di ko saytu di xool ndax mu ngi dox normalement wala déet. def naka su dul noonu mooy. mooy fraude sàcc courant bi. yéen bu dee tey nit yi def na ko ci woyofal lu ngeen koy xamee. bon sàcc courant ci woyofal ak ci classique yépp benn la sàcc sàcc la mais dañu am ay jumtukaay yoo xam ne dañu permettre ñoo xam ne Abdou Khadre Seck daan na jënd weer wu nekk juróom benni mais dinañ xool est-ce que Abdou Khadre weer wu nekk mu ngi jënd wala jëndul donc loolu la ñuy wax sans ak ki toog ñaari weer wala ñetti weer wala benn weer te jëndul dañ dem xool lan moo tax jëndul bu dee Abdou Khadre juróom-benni junni la doon jënd ci weer wi léegi ñu gis ne Abdou ñaari junni lay jënd dañuy dem xool est-ce que Abdou Khadre frigoom dafa paan wala est-ce que Abdou Khadre am dafa paan wala lan moo tax donc am na ay jumtukaay yu bëri yoo xam ne ne duñu permettre ñu xam client bi lan moo am ci biir këram lenn kay la ñu amul mooy jumtukaay nit yi koy dem di ko xooli régulièrement ak oto yi ak moto yi waaye bu fekkee ne jumtukaay yi koy xool rek am nañ xarala bu toll ni kenn ku lekk lañ nekk sa biir kër mën nañ ko xam chaque jour. d'accord jërëjëf Mouhamadou ay dara léegi euh, waxtu wi jeex na léegi yow euh, lan nga jàpp ne euh, laajuma la ko te nga bëggoon cee wax pour ñu lay déglu. bon mooy wax ci réforme institutionnelle bi ñu jëm rek maanaam coppali naka la Sénélec war a doxe suba ndax boo xoolee le gouvernement américain dafa jàppale Sénégal ci ay milliards yu bëri pour que ñu yeggale courant bi fépp fu mu yeggul woon moom moom la ñuy wax accès universel à l' électricité ensuite ñu bëgg a dindi monopole bi maanaam Sénélec kese kese kese di jaay courant loolu aussi dañ ko bëgg a dindi fexe aussi dëkk yi nga xam ne ñoom la ñu làngal muy ay Gambie ay Guinée ay Mauritanie ay euh, Mali ñuy mën a jokkalante ak ñoom courant moom la ñuy wax accès du au tiers accès du réseau au tiers yooyu yépp dafa tax gouvernement américain bi ñu defee noonu ñu imposer ñu nag ñu daal di réformer maanaam réforme bi mooy lan ci ni ñu ko waxee gum te tënk ko mooy dañuy fexe Senelec ñu def ko ay pàcc-pàcc mi ngi mel ni Abdou Khadre mu yore këram ak soxnaam ñu dem ba jëmmi jamono Abdou Khadre am du ay doom doom yi dem ba màgg am ay doom am ay jabar am ay doom léegi nag dañuy gis ne Abdou Khadre moom kese mi nekkoon ak soxnaam ci biir kër gi léegi kër gi màgg na ba Abdou Khadre dafa bëgg taawam dem beru ak njabootam beneen doomam dem beru ak njabootam loolu la ñuy wax la filialisation mooy naan dañ koy def ay pàcc pàcc. loolu nag comme ñun dañoo nekk ci biir kër gi dañoo bëgg processus boobu bu ñu koy def. ñu boole ñu si ñun sax anticiper nañu ndax association des kaadar bu senelek def na benn lël boo xam ne ñun liggéeykat Sénégal gi yëpp bokk nañ ci ñun ñi nga xam ne ñooy représenté liggéeykat yi ba am suñu xalaat bu ñu ci joxe. Hmm. xalaat yooyu nag lañ bëgg gouvernement bi buy doxal filialisation bi wala réforme bu mu tenir ci considération maintenant loolu daal mooy li nga xam ne bëgg nañ ko leneen li ñu bëgg moom mooy conseil d'administration bu senelek dañu bëgg ñun liggéeykat yi ñu am fa ku ñu fa toogal. conseil d' administration bu ASER conseil d' administration bu Comasel conseil d' administration yi nga xam ne ñu ngi nekk yépp ci ñun dañu bëgg liggéeykat yi toog ca conseil d' administration bi parce que fa la ñuy nase ak a noccee mooy les grandes décisions leneen li tamit dañoo bëgg ñu jox ñu ay part ci biir Sénélec ak ci biir entreprise yooyu ñu nekk ay actionnaire parce que bu fekkee ne da nga nekk actionnaire tey jii état bi waroon na jël 10 pour cent de son capital mu jox ko liggéeykat yi bu boobaa ñun dañuy jàpp ne Senelec ñun ñoo ko moom. su defee bénéfice dañuy am ci bénéfice boobu ñu bañ a nekk kese ay liggéeykat. di ngeen góorgóorlu ba bénéfice bi di gën a yokk. déet da naan di ngeen gën a góorgóorlu parce fi mu toll nii ñu ngi góorgóorlu. gën a góorgóorlu laa parce que nee naa la benn gën a ñaax. dañuy gën a motiver nee naa la benn milliard lañ jógee di yéeg di yéeg di yéeg ba 40 milliards. donc ñooñu ñu ngi góor góorgóorlu bon daaw daal ñamal nañ ñu ci <laughs> ren tamit nee nañ leen wax dëgg yàlla golo du béy baabun di dunde ah, nañu fexe ñu ni tamit ñu compal ñu ci bénéfice boobu jox ñu ko ñu am lu ñu mën a eh, bégale suñu njaboot yi tuuti fay suñu bor yu bëri ñu am macha allah jërëjëf ñu lay sant gërëm waaw man tam may delloo njukkal di jaajëfal agence Senelec yi hmm. parce que bu ñu toogee fii tey mën a wax bay wax bénéfice dafa am ku nekk ci centrale ba di togg courant bi am ku nekk ci réseau de distribution bi am ku nekk ci réseau de transport bi am ku nekk ci commercial am ku nekk comptabilité informatique pàcc yépp nit ñi ñu nga fa di def seen kéemtalaay kàttan pour yéen mili travailleurs yi yéen usagers yi ngeen am courant te doo leen ko yëg moo xam tabaski la moo xam korité la moo xam premier mai la mais ñoom dañuy bàyyi seen njaboot gannaaw dem di leen guddil di leen pëccëgal mm-hmm. loolu nag dafa laaj ñu di leen jaajëfal di massawu tamit suñu clients yi yéen clients yi ñu ngi leen di massawu ndax naam courant bi ameliore nañ ko waaye service bi léegi léeg mu am ay tolof-tolof léegi léeg ay ñaxtu yoo xam ne clients yi ñu ngi koy naxtu sur le plan commercial ñu ngi góorgóorlu nag pour améliorer suñu relation clientèle mais wax dëgg yàlla lépp lu ci am ci rëcc-rëcc ñu ngi koy jéggalu di wax ne bu doon suñu sago yéen ñi nga xam ne yéen suñu ay clients yéen suñu ay sang donc du ñu def lu dul jaamu seen ay soxla di gërëm ñëpp di leen gërëm di gërëm seen auditeurs yi. jërëjëf euh, Mouhamadou euh, Mohamed Habib euh, Aydara mbokk yi moom moo nekk secrétaire général du syndicat unique des travailleurs de l' électricité wala de la de la Sénélec di Sutelec moom la ñu invité woon tey ci seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck Mamadou Diaw Diallo moo nekkoon ci wàllu machine bi mbokki yi ngeen jëf jàmm ak jàmm.